ab diir a ngi nii ñu engagé ci mouvement bu ñuy woowee sat les sentinelles ànd taxawu Touba ànd ko ak bokk taalibe yi ak euh, xarit yi ak wëlëre yi ak mboolem ñi nga xamante ni dañoo engagé te Touba rek tax leen a jóg. bi ñu jublo jubee nag ay élection muy ay élection départementale bépp candidat bu nga xamante ni rek dem na ci élection yi mën nañ ne contacter nañu waxtaan ak ñun. ba ci dernier moment yi yàlla dogal am ku ñuy wax président docteur Ablaye Niane docteur Ablaye ñaan moomu nag bi mu dikkee ñu gis ne lépp lu nga xamante ni rek taxoon na ñu gànt ñu ci des eh, ci ay critères yoo xam ne dañ koy seet ci nit koo xamante ni dañ ko war a jiital moom gis nañ critères yoo xamante ni jar nañu ànd ak moom loolu tax ñu ànd ak moom ndax yàlla dafa dogal léegi nit ñi dañuy wax ne lii di politique nga xamante ni mën nañ ni ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam mën nañ ne ci jamonoom ba fi mu ne képp ku fi taxaw di doxal rek ci politique la nekk waaye nit ñi ñu wax ne politique àddina la yem ñenn ñi di wax ne politique day maanaam du dara fii rek la yem te politique dafa demee ni lépp ni mu demee ci sunu borom amul lenn ci àddina lu ñu du taxaw ci kanam sunu borom mu àtte ñu seetaat loolu loolu amul ñun nag bu yàlla dogalee ñuy engagé wu ngir sunu gox muy sunu dëkk di suñu ay bokki taalibe dara taxul ñuy engagé lu dut ngir lëggéeyal Serigne Touba lu dul ngir taxaw dëkk bi bokk ci ñi defar dëkk bi bokk ci ñi dundal Touba ñu ngi dëkk ak ay député dëkk ak ay chef de cabinet dëpp dëkk ak ay direct ay ay ay ñoo nga xamante ni ay ay direction la ñu yore di liggéeyal nguur waaye ba tey dafa mel ni euh, ni Touba desee ci lu bare bare bare lu nga xamante ni réew mi da ko ko amel noonu la ñu deselee askan wi ñoom loo xam dañ leen ko ameel ndax Touba dafa nekk dëkk bu nga xam ne mu ëpp Ndakaaru euh, bu fekkee sax dañ ne Dakar moo ko ëpp tam ñu mën a wax ne Touba li muy dugal ci dërëm ci addu ci ci Sénégal ak li mu ciy contribuer amul fenn wala kenn ku ko ciy def doomi Touba naka noonu waaye Touba bu ñuy séddale bu dee fukk la benn la ñuy jox Touba ku ci nekk da nga am ñett loolu nag bi mu amee kenn ku ci nekk waxtaan nañ ak moom gis nañu fii tam ku ne ku ne itam yàgg naa ñëw wax waaye yàlla dogal kii ñuy wax docteur Ablaye Niane di doomi dëkk bi bokk ci ñooñu nga xam ne waxtaan nañ ak ñun bi mu dikkee waxtaan ak ñun ñu gis ci moom lu bari gis nañ ne moom doomi dëkk bi la yaroo ci njabootuk Serigne Touba gi ñu yar ko jàngal ko liñ liñ ko war a jàngal lépp mu doon doomi daara jóge ci jaar ci daara yi comme ni ko Serigne Cheikh Gaïndé Fatma bëggee woon ba dem fu sori ba ay saam ci wàllum nasaraan lépp lum ci war a am wala lu ci nit di am ngir mën a jiiteem réew wala mën a jiite àddina bi mu amee ko. ñu gis ne kooku kat mates na ko jiital waaye ñu xoolaat gis ne critères yi ñu gis ci moom mooy Touba gii fi dëkk fi la yeewoo nit la ku nga xamante ni aussi bu ñu ko doon leeral mën nañu ne diggante bi mu jàngee ba dem fi impôt domaine ba gis na ni réew mi di doxee jaaduwul ni ñuy ni ñu jàppee Touba du dëgg du yoon tax mu démissionné bàyyi li nga xamante ni da ko doon liggéey di ci am teraangaam mu bàyyi loolu dem créer ay propre ma maanaam dem taxawal ab liggéeyu boppam di liggéey delluwaat aussi ci daara yi ngir servir réewam nekk jàngalekat fii ci Bambey di yeewoo fii ci Daaru Tanzil ay waajuram dëkk fii ci Daaru Xuddoos ni ki man ni ma dëkkee fii di doomi dëkk bi waaye ñun suñu jëmm ju xeebu ji nga xam ne itam ñun ngeen wuy si ànd ak ñun itam tey ñu jàpp ne yéen ñëpp da ngeen a noppi ngir jàppale ñu ci combat bi nga xam ne moom la ñuy xeex muy naka la ñuy def ba doomi Touba jot jot gëddaam naka la ñuy def ba suñu gox goxaan yi moom seen bopp waaye jot li ñu moom ñu gis ne bu fekkee ne nit ki da koy puus saa su ne saa su nekk mu dikk ci yow nit yàgg naa ñëw fii teew wax ak ñun ñu ne ko ñu jox ko suñu kàddu mu dem tey nag ñu ne dañuy décider sunu bopp lu ñu manqué woon muy mënuñoo fexe ba am benn représentant ci instance de décision yi nga xam ne ñooy instance yu kawe yi ñu ne nañu fexe ba am ndaw yu ñu fa yebal loolu tax ñu tànn ñu ñun dem ñu dugg ci biir list bi nga xam ne mooy liste diisoo ci xarnu bi nga xam ne élection départementale la ñu jëm élection yooyu nag ab ëtt la bu nga xam ne ëtt boobu dañu fay teew ngir di fa jàmbat ak di fa leeral ngir di jàmbat ak di leeral li nga xam ne mooy jafe askan bi li nga xam ne mooy jafe-jafe askan bi di jafe-jafe Touba nga xam ne jafe-jafe yooyu moom la Daaru Manaan gi ñu nekk am moom la gannaaw tali bi boo jegee am responsable yooyu ñi ngi fi teew moom la dëkk bi yëpp am ñi nga xam ne ñoo jógee Kër Ñang moom lañu am ñi jógee gannaaw moom la ñu am ñi jógee Baxdaat moom lañu am ñi fi teew ñëpp ci ay responsable jafe-jafe boobu la ñuy dund te monte ëtt bii nga xam ne moom la ñuy laaj ñeenti nit ñi ñu ko seqal di ko laaj ñoom ñëpp fa lañ nekkoon mën nañ ne daanaka ki ko jiite moom ñaar fukki at def na ko ci institution yu mel noonu ñi mu ko àndal tam ànd kook ñoom diir bu yàgg ay millions yi millions yi millions yoo xamante ni moo fa nekk bi ñu mënd mi sonale ñu mënoon ñu ciy dimbali waaye gisuñ ci dara rawatina fii ñu toog loolu nag ñu gis ne suñu alal jooju fa nekk waaye ñun amuñu ku ñu waxal suñu amuñu ku ñu fa jottali li ñu jafe jafe-jafe yu ñu am amuñu kenn koo xam ne dana fa teew ne Daaru Marnaan kër si xaw a Balla lii mooy seen jafe-jafe amul lenn lu ñuy yëkkati ci réew mi ba jàppale ci waa Daaru Marnaan kër si xaw Balla wala ñu jàppale ci waa Kër Ñang wala kenn gis loolu amul dara lu suñu ñaar téeméer yi ñu dajale ci sunu ay kuréel ngir defar sunu dëkk loo fi joxañ loola la te lii ay million nekk fi nga xam ne ci dëkk bi lañ ko waroon def liggéeyee ko dëkk bi te door dox ba gis ci virgule ñu bëgg mboolem responsable yi fi nekk euh, ñu waaj te xam ne vote rek moo fay tabbu ay nit nit ña fa nekk itam yor suñu alal vote rek moo leen fay jëlee te jamono dañoo toll foo xam ne dépassé nañu jox ma ñaar téeméer ma woteel la jox ma ab junni ma woteel la wala jox ma tisat ma woteel la dépassé nañu loolu. li nga xamante ni ci la ñu jëm lenn rek la muy dañoo war a xam ni bu fekkente ni bëgg nañoo tabb nit dañuy xool yan critère moo nekk ci moom nit ki mooy kan nan la ñuy def ak mooy kan ak nan lan lañ koy wax lan lañ ko war a yóbbante. Macky Sall ko fayal caution bu dee yeewi sëñ Fallou Mbacké waa kër Ousmane Sonko yee fay caution bi bu dee wàllu senegal waa PDS ñoo fay caution bi bu dee bokk gis-gis mën nañu Pape Diop a fay caution bi mennum docteur Abdoulaye ñaan képp ci biir dëkk bi moo dajalee fanweeri million moom ak ñi mu bokkal dëkk bi ak département bi génnee seen fanweeri million teg ci kaw taabal ji kon ñooñu kenn yónni leen. ngeen xam ne liste bi programme bi mu yor la ca jiitu mooy programme xale yi ndax. yaakaar naa lim fi programme yi sax du fi xaj waaye dina leen ci jukki lu néew rek loo xam ne Touba daf ko soxla woon ba jiitu mooy ay centre de formation centre de formation yoo xam ne conseil départemental ba mu ko waree def dafa yàgg ñoo xam ne tey bu ñu amoon centre de formation jigéen ñii nga xam ne tey bu borom kër yi xëyee dem liggéey yéenay des ci kër yi waroon ngeen a mën a am foo xam ne tey ku génn war ngaa dem ñi jàngal la fa liggéey boo paree ñu jox la sa diplôme ëllëg àdduna 11 examen day dox. foo mën di dem da nga mën a yor sa bopp ak sa diplôme te foo ko présenté ñu jël la nga liggéey loolu Touba def ko manqué te loolu bokk na ci suñu programme bokk na ci suñu programme commerçant yi nga xam ne dañuy voyage commerçant yi nga xam ne dañoo dëkk ci dëkk bi di voyage euh, nga xam ne dañuy dem ba dakaar suñu voyagé ba ñëw seen conteneur yi dañ koy wàccee dakaar di ci fay ay taxes yu seer te taxes yooyu bu ko fayee ba pare amul lenn loo xam ne Touba dana ko ci jariñuwaat dañ koy fay foofu ñu jël ko yemale ko Ndakaaru wala dara mais nag dañoo bëgg lu ñuy am lu ñuy wax port sec nga xam ne tey dañ koy indi ba ci département bi ñu def ko fi nga xam ne tey commerçant bu demati Chine voyage yi soo ñëwee sa bagage au lieu que ñi koy dédouaner Dakar mais dañuy ñëw ba ci département bi ñu dédouaner ko fi te loolu dana la dimbali ci transport bi dana la dimbali tamit danañu dimbali tamit la nga cay fay bu doon téeméer la juróom fukki duggaat ci dëkk bi yeneen juróom fukki ci des dem trésor public loolu tamit lu am solo la beneen bi ci desaat tamit muy son industrie nga xam ne Cheikh Ahmadou Badawi moom Serigne Fallou Mbacké 2009 ba tey mi ngi koy bëgg gars yi gàllankooroon ko ndax ku nekk xam ne ne dafa mel ne dëkk bi na ma yàlla bal mais ñi ñu jiital damaa xamul damaa xamul dañoo yërëmut askan wi wala yërmande xol xol xol bi ñu war a am pour mën a dimbale askan wi moo nekkul ci ñoom ndax lu mel ne zone industrielle ñu war ko am ci dëkk bi nga xam ne tey xale bi xale bi génn tey ne damay dem liggéey ji war nañ ko mën a yóbbu ne ko demal fee nga liggéey soo wàccee di dem jege say waajur ndax xale yu dëkk bi yu bare bari nekkatuñ ci dëkk bi man li ma ci wax xam naa ci dara nekkuma ci dëkk bi mbuur laa nekk fa yor place di liggéey mais boo demee da ngay xam ne waa Touba kese ñoo nekk mbuur ñenn ñi di ambila ñenn ñi def li ñenn ñi def li tey bu fekkoon lu mel ne zone industrielle am fi ku xam ku nekk xam na ne waajur ak ak doom seen xol yi dafa jege ku sañoon saa yoo wàccee gis sa yaay ku sañoon saa yoo wàccee gis sa papa waajur timis saa yu sañoon saa yu doomam timis jotee mu gis doomam ju góor wala doomam ju jigéen loolu mooy li ko gënal te loolu bu amoon amoon zone dana ñu ci dimbali te lool bokk na ci suñu programme ñu ngi ci waxtaan ak Cheikh Ahmadou Badawi te jàpp nañu buñ jotee conseil départemental bi danañ ko réaliser incha allahu rabbi man nag du def dara te jiitalu ma ca te maa gën a tuuti ci koñ bi mbooloo mi ma jiite tamit ku ne jaar na fi bu ñëwee nax rek la ñuy def li Abdou Faye wax sànq ku fi jaar la ñuy dig doo ci def dara wante nag respect moom mais ak yar bu mu ma woon ak tegginam te lu mu def du ma du ma ko rombale looloo tax mënumaa wax dara ma gànt ko moo tax président Ablaye Niang mii bi ma ko waxee ma ne ko dinaa ci ànd ak yow ba mu jeex te lu ma woo lu dul lii tamit dinaa ci ànd moom ndax respect ma jox may ñaan sama mbokk jigéen ñëpp ak sama mbokk góor ñu nekk ci kon bi ñëpp ñu jàppale ko te yàlla rek tax. xam naa ne daal Abdou mi moom lépp lu mu nekk man maa ngi ci am naa nag mbooloo ko moom waaye moom daf ma doy ni ko ñëpp waxee rek nit la daal te ku gëm boppam la ku bëgg Darou Manane te ñoo bokk nekk Darou Manane kon moom lu mu nekk man maa ngi ci loola. jàppale ko ñun daara Cheikh Awa Balla ji quartier Cheikh Awa Balla bi Abdou Faye mee la ñu jàppale ñu ànd ak moom rek lu mu bëgg bëgg nañu ko te di ko ñaanal mu yokku ndax su ak yokko mooy sunu yokkute fii koñ bi ay mbootaay kese la fii ñi fi toog ñëpp mairie bale lañ te kenn ku ne da ngaa jiite mbooloo ak karnay mbootaay tuwaar kàlla masalla li lekk ci daara Cheikh Awa Balla ji bu nu jàppalee du fay mu dem te dañ koy jàppale. kii meeru bale la moom it na jàll kii meeru bale la kee meeri bale la. kon ñi ngi santaat baax Serigne Touba di ñaan mu dolli nu tawfeex bu baax te lépp luñ fi wax ci eh, ay kaddu yàlla na nu Serigne bi defal tawfeex yàlla nañ ci dajeek ngërëmul Serigne tubaa itam te yàlla ko Serigne Touba gërëm te itam ñi ngi baalu ñëpp ak tey sant ñëpp salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu